million wala nga jox ko 2 millions pour mu génn entreprendre boo ko joxee 1 million wala 2 millions mu génn jël gaal gi nag. non xale bi day kii day jël gaal gi. kii day dem jënd ci ay daal yu rafet. Mhm. kii sañse ku nem ma sañse. day sañse buloowee ko dem noosi ji et du am lu mu fayee. e on va dire que c'est l'État on ne paye pas. mais looloo am Amina. junior bokkoo ci waxtaan bi jënd ci moom day participer. ci sama noppi day mu wax mu ne mu ne lu wax mu ne. man kay junior lu wax du ma ci <laughs> mais mais looloo am ah mbaa dañ ci seeti xale jigéen yi <laughs> non looloo am boo fekkee benn xale bu góor boo xam ne taatu ker suba taatu ker ngoon kaasu café benn Malboro nga yëkkati benn deux cent cinquante mille jox ko mais attends mais attends xam nga xam nga taatu ker suba taatu ker ngoon yooyu noonu man dama ciy gis ñoo xam ne dañoo jàng ba am seen diplôme bu ku ci mel ni ñun nga xam ne euh, def nañ formation trois ans génn ak ak diplôme ci suñu mémoire de soutenance ba ñu koy ba ñu koy bind peut-être soutenir soutenir ñu ci ci ci ci suñu domaine carrément parce que ci projet projet la ñu soutenir. man ah, man man dama rédiger projet. <laughs> non non du tout man dama rédiger projet. xam nga projet bobu tay rédiger won nak ba def ko mémoire bo xamné 70 pages le won ba soutenir ci devant devant les jurys am ci note tay momo may son diplôme peut-être ba ma ba ma ñëw xam nga man amna instant bi amna ben notion ci ci ci nan la ñuy rédiger projet ak yoy non yëpp sama pap dama ko ne pap financé ma ma mettre en place mon mon projet parce que man maa ngi fonds maa c'est transformation des des des fruits naturels en jus en jus locaux mm. mais d'ailleurs ngay am am idée yo non mais conditions yi wala réunir pour nga def ko c'est ça c'est ça le problème moi est-ce que tu avais déposé dans les DER dans les je n'ai pas eu l'occasion de de de parce que comme aussi euh, journaliste ma que <laughs> mais tu peux tu peux le faire avec. Hein. tu peux le faire tu peux le tu peux le tu peux le faire tu peux le faire avec. Euh, boole ko ak sa liggéey. parce que nit ñaa ngi euh, euh, def. yooyu di ko boole seen liggéey entrepreneur entrepreneur da ngay dem déposer comme que léegi suñu yaay Aïda Mbodj moo nekk foofu. fi mu nekk mais li ma li ma jaaxaloon mais monter sa dossier nga dem fa li ma jaaxaloon mooy dans le projet. ci livre bi parce que man lire naa ci lire même fekkee j'ai pas tout lu sax mais lire naa ci yenn part dañoo waxoon ko ni bu ñu accédé ci ci gouvernement bi dañuy fi dindi li nga xam ne mooy DR ANP yooyu yëpp dañu koy dindi def ko structuré ko benn euh, mu nekk benn benn organe. c'est vrai loolu la ñu mooy ëmb loolu moo moo naroon tudd banque xaw ma lan. loolu la ñu loolu développement du du du du Sénégal. mais projet bi amatul nee na amusul am en fait nee nañ c'était du bluff. non projet bi moom non non non non dañ ne amul dafa pareegul de septembre pareegul non ils ont pas dit pareegul non non non non non je suis je suis désolé je suis désolé ils ont pas dit que pareegul ils ont dit que ils vont le faire pareegul et on va le faire wala on va le refaire c'est pas pareil ils ont pas dit qu'ils vont le refaire. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de l'écrire parce qu'ils étaient en prison. Alors que pour être beaucoup, beaucoup de gens ont écrit parce qu'ils étaient en prison. Beaucoup de gens sont devenus écrivains parce qu'ils étaient en prison. Parce qu'en prison, tu as le temps. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que Ousmane Sonko bu parce que man projet bi Sénégal mais en fait populisme là encore. mais sa yëfi bopp ku la koy foo koy jéggaane ñu la koy bindal ñun dañoo bind ay projet waa Macky Sall dafa dafa bind projet bay bay jéggaane. kii bi nu mu tudd est-ce que bind quand même ko yoonu yokkute bi. ma la quand même wul woon la yoonu yokkute ñi ci dugg ñëpp man xam naa leen ñi ci dugg ñëpp loolu yokk xam naa ñoo xam ne ci ñi bind yoonu yokkute ci lañ bokk. E. ci ñi ko bind ci lañ man xam naa sénégalais yoo xam ne ñi ko bind ci lañ bokk. dama la affaire bi du jéggaane wuy ma jéggaani ko mais boo ñëwee def ci lu baax. jéggaani ko so ñé def ci lu baax. mais dama ne la gis na yi ñuy def ni mm-hmm. populisme bi di mm-hmm. wax di jéem nax sénégalais mm-hmm. ils ont menti à cette population là. dañoo war la population sénégalaise ils ont menti au 54 20,28 cent vingt virgule vingt huit des sénégalais yi leen war. yi leen voté may ma xaaral may ma s'il te plaît. li tax dañ leen a war dañ leen bi ñuy ñëw projet la nit ñi voté ana projet bi projet bi amul ne ñing koy défar da fay exister tout, ba existé wul woon wala mu nekk mayonnaise bu dog ba légui ni ñu koy défar mais faut teg des projet bi existé wul. mais amul ñom ñoko wax Amina ñom ñoo ne projet bi amul. projet bi pareegul ak amul. non non non non non non amul ñu ko dinañ ko défar à partir de nangam ñu ne pareegut. su nekkee depuis 2014 ba projet solution bi Ousmane Sonko doon wax pareegul kon y a un problème et je te dis les gens duñ ko baye xel mais Ousmane Sonko dafa am problème xel non du caaxaan parce que amna ñoo ne bu ko nit dé def il faut nga sur sournois deug deug deug wala sa bop am lu manqué nga nek article cinquante article cinquante moy ku dof munoo ñak nek article cinquante di continuer rek di wax li Sénégalais projet amu fi Amina soyons sérieux on devait parler de programme on fait des programmes pour pour un pays des projets c'est dans l'avenir quand on parle de projet, c'est dans l'avenir. Mais, mais programme là, en fait titre de mon projet mais c'est un programme programme nous nous présentons présenter, si ci Le président programme nous nous présenté peut-être que euh, intitulé bi mon programme bi Programme, un ci livre solution bi ñu plage non. Euh, programme bi nekk ci livre solution solution voilà. peut-être mais am aussi yo xam ne parce que changement am amna am parce que programme beaucoup pour am am am am da nga koy def au fur et à mesure réew mi jox ci solution yàgg je pense que c'était en 2014. ba ba programme amul. Mhm. nee na ñi ngi koy defar. doomu Sénégal yi ñu ngi et c'est vraiment désolant. que ñu nax Sénégalais yi ba jël réew non du du du comme que nax nañ Sénégal yi ba jël réew mi. xam naa ne dañ leen nax rek di gouverner comme ni ñu leen naxee démb génn def sortie ci lo xamné dugagul en rigueur. je pense que da nga wara bayiné suba wala le 5 ou le 10 la dara mais tu viens que et maintenant dans la bouche de tout le monde la la parce que c'est comme ça qu'ils ont communiqué avec les Sénégalais encore une fois le ministre là il voulait pas être ridicule bien vrai que le ridicule ne tue pas parce que bu a rey ñii dee